ñu ngi leen di nuyu bu baax te den siyaare di jiital ci nuyooyu ak siyaare yi ak ñaan yi Cheikh Mouhamadul Mountakha mi fi toogal Cheikhul Khadim ak njabootuk sëriñ tubaa gépp noonu lañ koy ñaanale Serigne Abdou Khader mi nga xam ne moo fi toog toogaayu sëriñ Darou Hassan ak njabootuk Serigne Darou Hassan gépp di ñaanalit Serigne Djili Ndiaye mi nga xam ne moo fi toog toogaayub sëriñ Bay Faalo waaye noonu la ñuy ñaanale sëriñ Cheikh Irada Ndiaye xeewal moom mi nga xam ne moo fi toog toogaayub sëriñ seex Fat Sila Ndiaye xéewal ak mboolem njabootug sëriñ Cheikh Fat Sila Ndiaye xéewal gépp góor ak jigéen mag ak ndaw di siyaare bu baax mboolem taalibe yépp ñuy waxtaane jëmm joo xam ne kenn la ci njabootu sëriñ Touba gi waaye kenn la ci njabootuk sëriñ daaru xasan mu di sëriñ seex fat si la njaay xeewal sun la laajee kan mooy sëriñ seex fat si la njaay xeewal danga naan sëtub sëriñ daaru xasan la mu bokk ci sët yu mag yi mu bokk ci sët yi nga xamante ne bii ne wuutu nan ko fi liggéeyal ko fi liggéey bu rëy sëriñ seex fat si la njaay xeewal nekkoon doom ci sëriñ bay faalo sëriñ bay faalo sëriñ daaru xasan waaye kan mooy waajuram bu jigéen soxna fatsi la bokkoon ci waa curang la mbaakol sëriñ seex fat si la njaay xewal gane jamono ci dëkk bi ñuy wax Touba Njaay gi nekkoon serigne daru hasan daru daaru njambur njàmbur ak yoy yep dekk serigne daru hasan la waye mu nekk ko xamne ku marqué empreinte la mom serigne Cheikh fatil ngay xewal ba jamono duutu ko fàtte ba muko mu liggey liggey bu reuy te dara mus ñor du ngeureumal yalla ndax kunu kunu fagul ngeureum la bimu amé juroom juróomi at à l'âge de cinq ans ci la ko woy juróom jële sëriñ Mbay Fallou yóbbu ko mu jàngi ndax sëriñ Mbay Fallou daa bokkoon ci ñi bari woon xam-xam ci yooyu jamono mu teel a yóbbu sëriñ Cheikh Faty Sylla mu jàngi mu jàng alxuraan ba mokkal ko mu ñëw mu wut yóbbu ko mu jàngi xam-xam ci diggante boobu nag mu xam ne nag jàng baax na lool sëriñ Mbay Fallou jël ko boole ko ay fasinaaru góor ak koppar yu duun jëbbal ko seex Mouhamadul Moustapha ne ko Cheikh Ndiaye mii dama bëgg nga def ci li gën am njàng lu gën am njàng te ñëpp xam na ne ngërëmal yàlla gënum njàng ndax ngërëmal yàlla mooy li jar nit ki àdduna mooy li jar nit ki alaxira te ci ngërëmal yàlla ci nga mën a fale ci nga mën a follee mu jël loolu ànd ak moom nag yóbbu ko ca daara ja muy liggéeyal Cheikh Maodo Moustapha te Cheikh Moustapha leen rek ko ñoroon mooy liggéeyal Serigne Touba bi. Cheikh Mahamadou Moustapha Serigne Cheikh Faty Sylla xewal di ko liggéeyal di ko liggéeyal ba 1945 ba wàcc ab liggéey Serigne Bay Fallou jëlati ko yóbbooti ko ci Serigne Cheikh Gaynde Fatma bi mu ko yóbboo ci Serigne Cheikh Gaynde Fatma mu nekk fa nag. di ko liggéeyal kenn ku ne xam na ne suriñ Cheikh ku am ngërëmal yàlla la ndax ngërëmal yàlla maam Cheikh ne Fall da daan wax ci kër gi ne ni ni ni ni ni ngeen di nuyoo ku ma ko ci waxoon mbooloo mbari topp la mooy koo romb ne ko jaajëf faay ne ko jaajëf faay mu ne leen jaajëf de ndaw na lool waaye ku ma ko ci waxoon mbooloo bari topp la kon jaajëf mu ne su ko wax ku jëful. dangay jëf sëriñ seex nag nekk koo xamante ne bii ne daraam du itteem lu ngërëmal yàlla te sëriñ bay faaloo nekkoon jàmbaar joo xamante ne bii ne ñëpp gis na ne dafa jëloon ndosam gépp joxoon ko Cheikh Mamadou Moustapha ndax ba muy bind leetaram ba dafa ne ko day ilayka yaa xutbul waraa aslamtu nafsi xaraa ruuxi wa ruuxi man sara ilayka yaa sal moom sëriñ bay faaloo di wax na Cheikh Moustapha ne ko dikk naa ci yow mi nga xam ne yaay xutbug jamono ji sama ruu ak bépp ruu boo xamante ne bii ne nangu naa rañaan dikk ci yow dikk ci man mii nag jibbu lu raam sukk jox la ko yow mi nga xam ne yaay boroom jamono ji daane nag amul kenn koo xam ne tiimee Cheikh Moustapha fenn maam min waliyun aw raqib aw xawsu ahlal qarib illaa alawtahu raqib alawta bi amul ku nuy wax xutbu nga amul ku nuy wax xaw su nga amul wàllu nga amul kenn koo xamante ne bii ne jiitu jiitu nga dara Cheikh Moustapha Cheikh Moustapha mooy ki nga xamante ne bii ne moo dajale ndàmb yépp téye sëriñ Cheikh si Sylla Ndiaye xéewal nag ñu boole kook ay ay nag ak ay fasinaaru góor jébbal ko Cheikh Moustapha ne ko kii dama bëgg nga defal ma coom lu gën am njàng sëriñ Cheikh daal di ñëw nag nekk ci daara ja nag ba mu joge fa nak 1945 nak mu mu ñëwaat ci Serigne Cheikh Gaynde farma nak aha bi mu ñëwaaté ci Serigne Cheikh Gaynde farma nak nek fa di liggéey di liggéey liggéey ba am benn bes Serigne bi wàcce ko nak andi ko ci Serigne mbay fallo dan nako am na ngeureumal yalla dafa ñëw rek Serigne Mbay nako subhanallah ngeureumal yalla de su ko wute nii wàcce goo dellu waatal ja subhanallah serigne bay eh, serigne bay dello ko mu delluwaat ca daara ja mel na ku wat di liggey yakul ci pas-pasam dara dara dara Sering Cheikh dafa nekkon ko xamantene bi ne ku amone intention la moy limi jëf da koy da koy gëm te bo duggé ci ab liggéeyam donte wo ay jamono yu ñëk da ngay xamne ki limi def pas-pas la ci andal ta pas-pas moy agal nit ki ci lepp amone na ngëm gi. al imaanu bi bil qalbi wa qawlu bil lisaani wa amalu bil jawaarih sëriñ Cheikh bu masaan a jëf dangay xam ne góor yàlla dëgg ngi nii mag ngi nee nan bu masaan nekk ci toolu Cheikh Moustapha wala mu nekk ci toolu sëriñ Cheikh Gaynde Fatma bi ba takk ndigg li bu jëlee gob bi bu ko dóoree ci suuf si da gis ni muy xare ay donju lay def tasaaroo ndax lan dooleeg pas-pas bu mu daan àndal te ki nga xam ne dafa gëm am intention di jëf day fenc xol bi cër yi di ko jëf làmmiñ wi di ko tudd Serigne Cheikh passage boobu la amoon bi nga xamante ne bi nekk na ci toolu Serigne Cheikh Gaynde Fatma di ko liggéeyal ba Serigne Mbaye delloowaat ko bin toogaatee muy liggéey di liggéey ba wàccaat jotaat Serigne Cheikh Gaynde Fatma dafa yëkkati kayit jël xalimaam bind leetar sëriñ Mbay Fallou xamal ko ne Cheikh Ndiaye mii booba ci yooyu jamono garaabtu xewal bi tappalagun ko ko sëriñ Cheikh Ndiaye rek lañ ko daan wooye waaye bi kër gi baree ay sëriñ Cheikh Ndiaye la ñuy dàkkantale kenn ku ne sa jur moom ñu di ko wooyee sëriñ Cheikh Fat Sila Ndiaye waaye bi mu liggéeyee ba am garaabtu xewal la ko sëriñ Bakk soxna loo tappal garaabtu xewal te loolu des na ci agsi bi mu ñëwee bind lettre boobee daan na ko. cheikh Ndiaye mumi day am ngeureumal yalla amna am cheikh mustafa man Serigne Cheikh Gaynde Fatma am na sama ngeureum Serigne bayna na subhanallah kon cheikh Ndiaye raw waye nak nangou te jang lettre bi ci kanam dako dak legui nak jël lettre bi téye ko daal di mel ku ko déclarer guerre liggey bu mu nekk ci bi daaray Serigne bay fallo Serigne Cheikh magadi diko liggey lo diko liggey lo beccëk di ko sonnal lu ne mu dëkk ko defloo ndekete booba ku muy préparé la ndax ku war a teg ci kanam la ku war a xettali jaam ñi la koo xamante ne bii ne lumière bi da ko waral dafa war a leeral ñeneen ñu topp ci ginnaawam ba liggéey bi metti nag ñu dem boole ko ñu dem ci Serigne Cheikh na ko boo waxul boo waxul ci sëriñ Cheikh mii danañ ko gaañ ndaxte liggéey bu metti bu na sëñ bee faalo dana ko def mu bindaa leetar bindaan lettre daan ne Serigne Mbaye Fallo man Serigne Cheikh Gaynde Fatma na nanga xam ne Cheikh Ndiaye moom mii def naa ci moom ba lépp lu ñuy def ci góor yàlla kon leneen lu ñuy jéemaat ci ak yàq lay gën ruwaay doo ak defar mbir ma daal di confirmé wu nag mun a ah, sew subhanallah kon Cheikh Ndiaye raw na léegi nag mu commencé koo yolomal nag waaye tax mu bàyyi da koo yolomal ndax jëfe ndigal gi Serigne bay Fallo daan ku kuraan jëfe ndigal la laa tafaaloo sayen bi xeeri isni fal isni sarfun fi xabalu sëriñ Cheikh nag nekkaat koo xamante ne bii nag léegi nag mu ngi ci biir kër gi nag taxagul muy fanaan ci kër gi waaye ci daara ja lay fanaan sëriñ Cheikh Faty Sylla Ndiaye xewal neen daa demoon ba mujj mu jàpp ne moom ci daara la dëkk jàppewul ne dana nekk ci kër ngir ku nuy defar ak jukko ju baax defar na am néeg ñu defaral ko am néeg néeg bu rafet mu rëy lool sëriñ bay faal dugg ci kër gi ne sibu sobaan laa ko néeg bi ñu ne ko xanaa sëriñ Cheikh Faty la mu ne siw subhanallah wool ma ko mu ñëw mu ne ko Cheikh danoo bëgg am néeg boo xam ne day ci kër sëriñ Cheikh Gaïndé Fatma sëñ bi neen yëkkati leen néeg bi yëkkati néeg bi nga xamante ne bii ne jël fa jël position boo xamante ne bii ne saaboo boo ne ko ëcc ci ndigal pare na sëriñ seex ko paree ngi noonu amul dara lu koy lu koy tàddal fenn ci ndigal ndigal rek murid la boo xamante ne bii ne dara moomu ko dara saaboo boo ne ko ndigal jekk na ndigal rek mooy li nga xam moo ko moom waaye Serigne Cheikh Fat Sylla nee na daanan ko xottil mbubb mu rafet boo xam ne mbachin russe lay doon mu ñëw sukk ci kanamu Serigne Bay Fallou nuyu ko su duggee néegam su na mu ma ba teg ñetti morso yi summi na ko ba teg ne sotti mu yónnee ndaw na ko wool ma Cheikh Fat Sylla mu ñëw mu ne ko Cheikh danoo bëggoon mbubb moo xamante ne dañ koo bëgg a yóbbu ci kër Serigne Cheikh mu daal di lem ba mu jekk dugal cib saagam jox ko na ko bisimilah kon ku pare la woon waaye loolu lépp li ko waral mooy sàkku gi muy sàkku lu baax te Sëriñ Tuubaa moo ne woon raamal wara nay la fadlu musri'ana lahu waaye wal fadlu inda rasulillahi al qaraar lépp lu ñuy sàkku rek mi ngi ci rasulillahi te Sëriñ Seex Faty Sylla fi mu sàkkoo ngërëmal yàlla ci rasulillahi la ndax lan benn mooy ci Seex Muhammadu Moustapha Cheikh Mouhamadou Moustapha dafa am ngërëmal Serigne Touba Serigne Cheikh Gaynde ma Serigne Mbacke màddina ñoo toog ci kanamu Serigne Touba Cheikh Khadim mu leen seen waajur wi gërëm naa ko ndaxte day Cheikh Moustapha dane dama bëgg ngeen bindal ma ab kaamil Serigne Cheikh bind kaamil Serigne Cheikh Gaynde Fatma bind kaamil Serigne Mbacke Madina bind kaamil ñu jële ko tindoo di fanaan fii ci sunra Cheikh Mamadou Moustapha bind ab kaamil ñoo ànd war ko yóbbu ci Serigne Touba ko sikki ak libee ak li nga xamante ne moo di si jaadaak li ca war yëpp raam